asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog duñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu gën ko fee yàggal lool te gën a doole ak wéram di am mbégte di toog fii ci jataay bii ci ndigalam jàkkaarloo ak jëwriñam ji nga xamante ne bii moom lay liggéeyloo ci digganteem ak daayira yi ak taalibe yi ci wàllu ziar yi mu di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif mu feggoo ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ñu di ko ci jàpp li ngir yombal aw doxin dimbale sun bopp dimbale sëriñ bi moo tax ñu àndandoo ak sëriñ Moussa moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou di seen jëwriñ ñu fas yéene yëkkati kàddu yoo xam ne dana jëm ci mbooleem ku ñëw di siyaare si moo xam nga yor ab daayira moo xam nga beru yow kenn di siyaare si doxin wi nga xam ne fas nañ ko yéene ànd ak taalibe yëpp te bëgg ku ñëw loola jàpp ni ci yow bala nga bëgg nga mën koo am te benn fitna du ci ànd loolu moo tax Serigne Cheikh Abdou Mbacké Serigne Cheikh Abdou Latif bëgg a yëkkati ay kàddu ci turu Serigne Moussa ci ndigalul sëriñ bi ñun ñëpp ñu maase déglu ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu nuyu bokki taalibe yëpp li ziyaare ñëpp. ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha mi jëwriñu liggéeyub Serigne Touba bi. waa ji waaye ci ndigalul sunu jëwriñ nam muy Serigne Moussa Nawel. Moustapha Bassir muy jëwriñ yi sëriñ Muntaxa ji taxawul liggéey bi mu yónni nu ay kàddu yoo xam ne dañ koy jëmale ci bokki taalibe yëpp waatina bokki taalibe yi nga xam ne dañoo am yéene di jóg di fekk si sëriñ bi fii Tuubaa di ziyaare si rawatina ñi nga xam ne dañ ay daayira lañ yor ñi nga xam ne dañoo jiite ay daayira am yéene di ànd ak daayira yi di ñëw Touba di siyaare si mbir mu nekk nag Sëriñ Muntaxa noonu lañ koy waxee buñ ko nosee rek mu yomb yóbbu waaye lu amutum nos nu mu ban a demee du yomba yóbbu mu mel ne nas bi itam mooy teg ko rek ci yitte ak pas-pas mu na mbirum taale bi mu mën a doon buñ ko tegee ci teeg pas mu laltaay ko rek lu ca tegee te dana yomb kon sëriñ bi bi nu waxtaane bi mu waxtaan ak noonu jëwriñ yi ne nañu seet nu liggéey bi gën a yombe ci taalibe yi ñëw gën nee yaatoo noonu itam nu xalaat ci nu muy gën a yombale la sëriñ bi ab liggéeyam te loolu suñu liggéey suñu ndimbal lay doonoon ñëpp nu ko defee noona loolu nag moo tax ñu am ay kàddu yu ñu bëgg a yëkkati ci ndigalu sëriñ Moussa jëmale ko ci bokki taalib yépp waxaat nañu jiite daayira yi ak ñu di siyaare si loolu biñ ko xalaatee gis ko liñ gis mooy faaw ñu seet ay bis yi ak waxtu yi luñ koy tërale ba kenn ku nekk bàyyi ci xel ba buñ sàmmoon teg tër tëral yooya dana yombal ñëpp yombalal ñëpp bis yi moom naka jëkk talaata ak àllarba sëriñ bi da ko ñaanoon ñu may ko ko te ngir mu di ko lijjanti yittey biir kër ga te loolu kat nam demee man mii maa ko njëkk ne ko ndax duñ la ñaanal ay bis yoo xam ne da ko mën a lijjanti sa yitt yu sew sewaan yi ndax duma la ko ñaanal sëñ Moussa sax laa ko waxoon mu ne ah du ma ko ñaan waaye bu ngeen ma ko mayee itam ma jël kon loolu mooy pastéefam ak yitteem tax na du bëgg wàññi dara lu mu jàpp na ci liggéey bi sëriñ bi la waaye liggéey yami liggéey biir kër yi këram itam dara génn ci sëriñ bi bi ko waxee sëriñ Moussa la ko sëriñ Moussa wax ne ko kon nañ la may talaata ji ak àllarba ji sëriñ Moussa sax yërmandeem daa taxoon moo ko sëriñ bi ne ko nañ ci boole altine yi sëriñ bi ne ko altine ji moom nan ko liggéeyi rek talaata jeeg àllarba ji doy na kon sëriñ bi bàyyi xel taalibe yi ak yërëm leen ak yittewoo leen fi la mën a yem jëwriñ yi itam mu tàmbalee ci sëriñ Moussa lépp luy yombala sëriñ bi te it dimbali taalibe yi loolu rek moo ci xalaatam moo ci yéeneem moo tax wàllu siyaar yi nag ñoo am ci ay xalaat yu ñu bëgg a leeral ginnaaw boo xamee ne talaata ak moom mayoon nañ ko sëriñ ba noppi bañ bàyyee ko sëriñ bi mu ne ko toppatoo yittey biir këram li tàmbalee kon alxames ajjuma gaaw dibéer altine yooyu mooy ba bési liggéey yi nga xam ne sëriñ bi da koy xëy si kër sëriñ Tuubaa gi di fi taseeg taalibe yi di saafoonteeg ñoom ci biir loolu nag am ci ay xalaat ak i tëralin yuñ bëgg di ci njëkk mooy balaa kenn ñëwati danañ ko jox ay numéro yu muy woote boo noppee sëñ Fallou Galass mi na wax numéro yooyu bu ca wootee day wax moom su fekkee jàppoon na bis ñu seet te bis booba lim bañ ci war a jël feesagut ñu bàyyee ko bis booba su fekkee jàppoon na bis ñu xool bis ba te bis ba lañ ci war a jël ci ab lim feesoon na ñu xamal ko ne ko bis boobu fees na suba bis sàngam la bu la soobee mën ngaa ñëw wala ñu bàyyi ko ba mu tànnal boppam ba beneen bis waaye foofu lañuy tàmbalee njëkk yóbboo bis bi itam nun nooy xalaat ñaata daayira la gis ne dana na ci bis bi buñ ko jëlee daayira yi danañ mën a jàpp jàkkaarloog sëriñ bi saafonte moom sëriñ bi mën a waxtaan ak ñoom sant leen gërëm leen ñaanal leen ndax buñ bàyyee ñëpp ñëw bis bi buñ jëlee daayira yu lim bu xaw a kawe la muy jur mooy mbooloo mépp duñ mën a gis sëriñ bi nañuy mujj def mooy jëwriñ yi rek ñooy dugg ci sëriñ bi joxe addi yi ñaanal leen mbooloo yi duñ gis sëriñ bi te boobaay dana am lu mu xaw a metti ci mbooloo yi itam ndax jógee dëkk bu sori fajaroo fa ne ci kaar ba bëccëg nga egsi yendu fi ba ngoon mu ngi ñibbiwaat dem Touba te seenoo sëriñ bi di daal di bëgg a dis yow te bu fekkee nasuñu ko itam nis boobu gis boobu dootu yomb loolu lépp nag kon bëgg lu yombalal taalibe yi rek lañ ci jublu ak bëgg itam képp ku jóg bu ñëw Touba ngir sëriñ Touba boo ñëwee Touba sa aajo faju naam dana faju ci baatin moom ku fi xas ñëw rek sa aajo faju na ci baatin waaye fajug saayir gi nag jàkkaarloog sëñ bi day neex lool ci taalibe yi loolu lañ bëgg jàppale leen ci ba jàkkaarloog sëriñ bi gi maanaam loolu moo tax lim bi nga xam ne nooy seet ne lii buñ ko jëlee ci bis bi danañ danañ mën a jàkkaarloog sëriñ bi mu jël bis lim boobo bu lim bu bis ba feesee ci lim boobu bis ba ca topp ñu tàmbali ko ku woote ne noonu di jàppoon nan gaaw nu gis ne gaaw ba feesagul ci lim booba dañ naan bisimilah mën ngaa ñëw ci gaaw bi gisee ne gaaw ba feesoon na ci lim booba dañ ne la gaaw bi kat xat na tey ngaa ñëw dibéer walla alterné yow lu la ci soob nga def ko booba boobaa lu ci gën yaatu ci yow lim yooyu nag nun noo koy xalaat nattale ko ba gis na lim bii dana baaxe nii la ca dolli ko mooy sëriñ bi itam nii mu soxla boppam ci talaata ci àllarba ji ni laam yeneen waxtu yi muy soxla boppam ci bis bi ñu bàyyi xel ne kon sëriñ bi mën nañoo jàpp ne di tàmbulee une ba trois mooy bis yi mooy heure yi mi euh, ubbi di ko recevoir taalibe yi kon daayira bu bëgg a ñëw nga fas yéene texe fexe teel a jóge fa ngay jóge boo egsee ñu man laa dalal nga toog ba diggante boobu nga mën cee sëriñ bi ba sëriñ bi bu fatoo trois heures ñu jéggal ko ci ngoon gi ndax ngoon gi yi muy war a def ci boppam ci am njàngam ci ay kurusam ak yu nu demee da ko dul mën a boole génnaat ci ngoon gi te daayira bu egsee digg bëccëg ñu dalal ko mu fekk sëñ bi fatu mu bëgg a delmaat bëgg a nekk sëñ bi ci ngoon gi bëgg sëñ bi six heures ba sept heures bëggee génn ñibbi fu sori dana metti ci moom dana guddi te sëriñ bi du mën a génnaat lu dul loola ndax li ko war ci diggam ak boroomam day bëgg dara du ci des di ko war ci diggam ak sëriñ bi dara du ci des diggam ak sëriñ bi nag mooy taalibe yi diggam ak boroomam nag mooy ab téeréem ak kurusam yooyu yëpp lu ci nekk day am waxtu yoo xam ne dañ ko koy may bàyyee ko ko mu mën caa def la mu ci bëgg a def kon li ñuy bëgg mooy fu waay di mën a jóge boo jullee fajar jógee fa loo sori sori donte ndakaaru la boo fa jógee woon six heures du matin balaa onze heures dina fekk dëkk Tuuba wala lu mu yeex-yeex midi bu ñëwee ñu dalal leen bu une heure bu sëñ bi ubbee balaa trois heures ñi nekk ñëpp nuyoo daayira yi mën a ñibbiwaat ci jàmm ndànk ñëpp mën a gis sëriñ bi boole kook sëñ bi it mën a àggale ci jant ba la war a def ci ci ci diggam ak boroomam loolu itam ñu bàyyi ci xel bari na ci ñu bëgg ñu yeneen yeneen yu ñu bëgg ñu bàyyi ci xel mooy ñaan yi kenn ku nekk ñaanam wala ak kenn ku nekk butéelam itam wax dëgg loolu du mën a sotti dañ bëgg ñoo am na barkeelu yu sëñ bi wax nañ koy wut bu barkeelu yi buñ ko wutee ku jiite daayira ku nekk bu la joxee barkeelu bi boo demee ba fa nga dëkk nga bu nekk ñu somp ci barkeelu ba jox ko dee mën naa jël butéelam def ca somp ba teg ci bopp lalam bu itteel naan ci ñetti yoo xam wala bu naan ko fas ci lam bëgg sëriñ Tuubaa dana ko ci rek defal ko lam bëgg loolu dana yombalal sëriñ bi yombalal no la ca dolli ko waat tam mooy jëmmi mbooloo mi bu ñu ñëwee itam kenn ku ci nekk yoon wañ lay wax ne yoon yi boo ci jaaree dana la yombalal yombalal nu ñu neex caa waxal ba noonu ñu bañ a réeroo wala bañ a xëccoo ci ndigal ndigal yi ñuy joxe ngir ñu yombal liggéey bi wala itam ñu bàyyi wàll kal jëmmi bis yi itam danañ ko tàmbali xalaat ci am na nuñ ko xalaatee kon lu mel ni alxames ak ajjuma daayira yi nga xam ne ñu ngi ci biir Touba wala ñu jege Touba mën nañ leen di ajuma dafa gàtt faaw sëñ balaa mën a ubbi deux heures demi doon te loolu boo jógee fu sori wala daayira yi bari itam boobaa day andiwaat andiwaat fitna ci ñëpp bu gaaw ak dibéer nag foofu daayira mën a jógee mën nañ ko jóge jógee fu sori mën nañ leen waajal ñu ñëw bu ñëwee ñu mën a sàmmonteeg waxtu yooyu danañ mën a amuk dal mën a siyaare mën a xewlu mën a wàññi ko ndànk alterné ñu ko bëggoon a bàyyee mooy yenn délégation yi ak yenn kilifa yi ak yenn mbooloo yoo xam ne bëriwuñ te ay kilifa yi kese lañ bu ñëwee altane yi mën a toog ak sëñ bi mën a jàkkaarloog sëñ bi mën a wax ak sëñ bi yitte ji leen tax a jóg mën a delluwaat si jàmm soroxo soroxo ji daal lañ bëggoon mu wàññi ñu bëgg koo nas te buñ ko nasee noflaay ñëpp lay doon njëriñu ñépp lay doon kon nag dama leen di bàyyeeg suñu Fallou Galas mii mu jox leen numéro yi nga xam ne ku bëgg a ñëw boo ci wootee danañ la teg ci yoon numéro yooyu itam ka ngeen di jot dana fekk na xam na la ñuy nes ca bis yi ngeen di joxe bu ngeen ne gaaw loon bëgg a ñëw fekk xam nañ gaaw ñaata daayira lañ ci amagun woon bu fekkee lim bañ wax te leen gën a gun a jàpp mooy fanweeri daayira buñ ko amee dana mën a yaatu noonu mën a yaatu sëriñ bi ndax bi ñuy laata ñu um demoon nañ ba am juróom-ñett fukki daayira mbaa juróom-ñeent fukki daayira soroxo soroxoj dana bari kenn dootu xam looy wax kenn doo xam loo fi jëlee na ko na ko sëriñ bi bëggee du yomb ndax yaatu du am ko taalibe bi bëggee du yomb ndax yaatu du am kon nañu def ko yaatal te ñaan la bokk fi nekk buñ fi bokkee nekk lépp xaj na fi lépp dana ex lépp danañ ko def ndax sëriñ bi taalibe yi rek def liggéeyam te taalibe yi it mooy mbooloo yi ànd jóg fañ nekk ngir sëriñ Tuubaa kon loolee rek lan ci mën a dundal waaye kon noo ngi tëjee suñu kàddu ci ñaan baytu Sëriñ Tuubaa wa rek inna lazina ila sarsaara xat xasado ziyaarati faara xoddaare ni aw saara képp ku jóg ngir ziyaare Sëriñ Tuubaa fi daal ñu ngi ñaan boo delloo nga tàggu say bakkaar jële ci aju faju jële ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa di leen sëriñ waxoon nañ ko jottali ñu bàyyi Sëriñ Fàllu Galas mi wax leen numéro téléphone yi yeneen leer yu ci war a dolli ko war tëmboole gi dara jërëjëf yi ñoo jot a dégg kàddu yi bàyyi ko ci Sëriñ Seex te muy kàddu yu jot te leer kon ñu xam rek ne diggante talaata ak àllarba moom ku fi ñëwit doo gis sëriñ bi ndax sëriñ bi da koo nekk ci yeneen yitte te loolu jëkkewut ci moom mboolem way juram yeeg magam yim fi wut yëpp xam ngeen ne am na bis yuñ daan ñaan ngir ñu may leen ko te it nit ñaar da koo seq mooy liggéeyub sëñ tubaa bi mu seq ñëpp nag waaye njaboot gi ko sëñ tubaa dénk nag sun borom jaarale ko ci ay loxoom tama yor seen responsabilité te yooyu yar yëpp mu bëgg ko lijjanti te bëggut benn des ci ginnaaw moo tax mu yalwaan taalibe yëpp ñu may ko talaata ak àllarba mu nekk ko ci ay yitteem mën naa am nga jóg ñëw Touba sëriñ bi ña ca tool ya mën ngaa nga ñëw fekk Touba sëriñ bi fatu kon li gën mooy talaata ji ak àllarba ji moom kenn bañ a jéem a lijjanti fu sëriñ bi ne te bàyyi ko ca lam nekk kon loolu lu leer nañu la mu des altine ñu bëggoon mbooleem ñi nga xam ne dañ def ziare individuel mooy kenn ku jóg siyaare ñaari nit yu àndoo kilifa gu bàyyi koo ci kër ñu xam ne altine jooju mooy gën a libre ci ñoom buñ dikkee danañ mën a gisee ak sëriñ bi su ko defee altine jooju ñooñu it bàyyi ko xel bu baax bañ a dàkk ne damay dem ci ajjuma te fekk na lu ëpp ci daayirey Tuubaa yi ñooy gën a bari mbooloo ndax ñoom paas du leen war dara du leen war te gone yi danañ ci bari su ko defee alxames ji ak ajjuma ji xeeti daayirey yooyu yëpp mën di ñëw fii su ko defee sëriñ bi dana leen mën a recevoir jàkkaarloog ñoom ndax ku jàkkaarloog sëriñ bi sa aajo faju su ko defee gaaw ak dibéer nag nga xam ne mooy bisi feet yi te lu ëpp ci daayira yi jóge ndakaaru yi jóge bitim réew yi jóge eh, fu mën a doon lu ëpp ci gaawu ak dibéer la ñuy ñëw su ko dee daayira yooyu ñu xam ne gaaw ak dibéer ñoom ñëpp mën nañoo ñëw ñu recevoir leen waaye bokk yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ne juróom-ñett fukki daayira sëriñ bi ubbi une heure deux mu war a julli tisbaar te faw bu jullee dana def ci kurusam lu mat fan fanweeri minute soo ko bëgg génne jàkkaarloo ak nit ñi te war nañ leen jox ay xéwal te bu tàkkusaanee war naa fatuwaat war nañ ñoo xam ne juróom-ñett fukki daayira recevoir leen ci du yomb moo tax ñu bëggoon bindu gi moom doonut lu mën a ñàkk kon numéro téléphone yi ñuy joxe képp ku bëgg a jóg siyaare si moo xam nga nekk moo xam ngay kilifa moo xam nga yor ab daayira ak bu mën a doon bëgguñu nga bette ndax gandu bette bëgg nañ ngay woote su ko defee danañ la mën a leeral waxtu yi nga mën a ñëw boo boo ñëwee gis sëñ bi te dem Touba te gisoo sëñ bi moom li ñuy wax ne li àjjanay neex neex gis yàllaa ko dàq murit itam ku mën a gis te gisut sëñ Touba mel na gisut kenn numéro téléphone yi ñuy joxe ku ci woote da fekk na ñooñu ci biir nas bi bokkoon nañ ci waxtaan wi fekke nañ ko xam nañ bis bi ñu mën a recevoir bi kuy woote nga teel woote bàyyi ba deux heures nga ne naa woote xam ne ne maa ngi ñëwit boo ko woote loolu day bette ki war a ñëw suba daa wara a woote ne damaa bëgg a ñëw gaawu ki bëgg a ñëw altine woote dibéer ne damay ñëw altine ki bëgg ñëw talaata woote altine su ko defee bu fekkee lim ba fees ñu ne la bàyyil ba bis sàngam wala seetal beneen bis waaye bis booba fees na suñ ko yëgee danañ mën a teel a bind wala barkeelu it xam ngeen ne sëriñ bi su bëggee di wax ak nit ñi bëgg di tifli ci butéel yi di tifli ci boppi liir yi loolu dana xaw a bari kenn ku ci nekk soo soonam ne sëñ bi ñaanal ma sëriñ bi def na ñaanuk boppam te ga sëñ bi def moo gën ci nun gi ñuy tànq li muy baax baax ga sëñ bi fàggul boppam di ñu ko jox googu mooy sun aajo ci la sun aajo ju faju ne kon sëriñ bi def na ay ñaan yoo xam ne bàyyi na ko fii daayira bu siyaare danañ la jox ca ñaan yooya boo demee nga séddale ko waa daayira ba ñu seq ko ñoom ñëpp am ca pas-pas ca fas suñu borom dana ko def kon loolu leer na nañi numéro téléphone yi nag bi ci jëkk mooy numéro téléphone Cheikh Abdou mu Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif mënees naa jël numéro téléphone am eh, di 77 576 58 76 Serigne Cheikh Abdou Mbacké la moom Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif duñ tàggoo waxtu wu ne mi ngi dend ak moom su ngeen ko wooyee ci 77 576 58 76 bu dee daayira buy bindu wala wax ju mën a doon seriñ bi dana ci jot beneen tigo bi mooy 76. 530 538 16 60 76 538 16 60 wala ñu woo sëñ Lamp Ndiaye mi ngeen xam ne moom ngeen fekk ci mbaar mi te muy bind daayira yi ñuy jël ñëpp nag amu ci kenn koo xam ne ca àll ba la sëñ bi fore ñoom ñëpp ay tuut tànk lañ sëriñ bi yaral leen boppam tërbiya leen ñu ne ca daaray tërbiya ba wàcce leen andiwaat leen ci kër gi kon xam nañ ni ni jaxasoo ak mbooloo mi sëriñ bi it min na leen ca jëf nag ka nga gën a min da ciy gën a baax